yeah maa ngi fay sister. maa ngi san suñu borom yow nag. Chérif luy sa secret laa bëgg a xam. waay. xaw valence bi nekk ci yow fan la borom moo ñu dimbali rek <laughs> barke yàlla. <laughs> Uh-huh. ngeen màggale ko loolu def la rancune ba pour nga amatoo sax kër pour baale. waaw day am day am moo tax uh, xale dañ koy topp depuis ci ci ci lu ndaw au fait parce que uh, doomu aadama mën na traumatiser au fait. mën a traumatiser wala mu gis benn yoon ne yoon bi mooy yoon bu baax fekk xëy na keneen dafa naan non yoon bi du yoon bu baax mais mu sera convaincu que yoon bi mooy yoon bu baax tu vois moo tax l'éducation c'est très important tu vois ñu gën a waat bàyyiwaat xel bu baax baax a baax sunu suñu bopp voilà c'est c'est important surtout les les jeunes sénégalais parce que tàmm nañu tey bu ñu divorcé ak yaayu xale wala seen yaay génn àdduna bu ñu takkaatee jabar dañuy jël seen jabar teg ko seen kaw yu doom loolu dal na leen ba seen papa génne leen kër gi nga frustré wu daal di jël yor bu bon. waaw waaw waaw man nag yaa ngi woon bu dee ma wax trop parce <laughs> que yàlla bu dee ma wax. Ah, tey noo dundee tey rôle bi nga xam ne joué nga ko parce que c' est pas du tout évident. un rôle bi nga xam ne joué nga ko. c' est pas du tout vraiment évident. waaw lu ñu doon waslu àq la rek comme ni ñu la ko waxee tu vois suñu sista wóoluñu et euh, dénk ñu liggéeyam ci agence am et ñu def suñu kéemtalaay kattan ay acteurs lañu tu vois donc c' est acteur comme poubelle la rek donc poubelle mën na am lu nekk ci biir tu vois donc peut être mélange ou personnage du Doudou moo grave bu mu mel noonu tu vois donc c' est juste un personnage que j'ai interprété à un moment moom moo doon valeur. ban projet lañ mën a xaar ci yow. bëri na trop suñu bopp yëpp ay projet la mais step by step ndànk ndànk après euh, petit à petit les yi y verront incha allah voilà. Mario célibataire. ah célibataire. nga ñaanal ma. <laughs> xale yi fi mu ne nii nag jamono ji ñëpp takku nañ ne Chérif lañ la ñu bëgg loo leen di wax. doo gis ba loolu ma Ibadou laa. <laughs> merci beaucoup <laughs>